nit du jóge fii di dem ba màkk ñàkk ci lu mat 2 millions 3 millions. Mm-hmm. loolu nag euh, pour ëllëg la sunu avantage la ñun jullit yi. Mm-hmm. moo tax yàlla na ci yàlla jàppale jaam ñépp. te mu jaaraat fa mu daan jaar rek. ndax tout le temps jàmm ci jëkk mujj ci euh, euh, professeur. Mm-hmm. coono ñi ñi daj daj ci tabaski bi. sonn ci loolu. ci utum cheveux naturel. waaw bari na ci ci leneen ak leneen. dafa bari ay périphérie ci bokkul waaw vraiment est teguñu ko. voilà non xale bu jigéen boo xam ne yow diine ji. soxalu la da ngay monter perruque monter mèche naturelle dem salon xeesal euh, tabaski jot nga yenu ko mel na yow rek rek rek yow lan sàkkal tabaski loolu moom taxul ñuy wax tabaski da nga ciy nekk année bi yëpp bu ko defee bu tabaski jotee nga def sa diggante ak sa pas-pas mu jeex kon Ramatoulaye mbir maa ngi noonu merci mas ci introduction bi ñu dikk ci thème bi nga xam ne moom la leen indil tey ñëw lan moo la andi. kan man damaa nekkoon sama benn kër xarit léegi ba ma dama dama faa dem benn fan. ma am doom ba ma amee doom ma ne ci moom léegi ba ma nekkee ci moom tey ma xëy ma ndékki ba pare léegi ba ma ndékkee ba pare léegi ci la ci laa laa jël sama doom ji di dindi couche bi gis ci deret léegi may woo sama xarit bi ma ne kaay xool xale bi mu ngi génn deret mu daan na ma ah kii dara jotu ko bàyyi ko noonu ma ne ko man dama koy yóbbu hôpital bi mu ne ma doo ko am ko fayee ma ne ko ma sama sama yaay mu daan na ma ak ah, sa yaay ma koy woo faalew ma nga xaw ma la nag la mu wàcc dem toog ci suuf ci laa làqatoo nank ma indi xale bi ma dem ma dem hôpital bi ma accouché woon ma ne leen sama doom ji day génn deret ñu daal di ko fompal ba pare daan na ma après bu subaa nga ñëwaat ñu ñu pikiir xale bi léegi daan ma bindal ordinance daan na ma da ngay jël ordinance yi nga jënd ko ma ne leen man yoruma xaalis ñu ne ma ah nga lijjanti xaalis nga jënd ko demee toog mairie ba ma demee toog mairie ci la ma kii fekkee fii ba ma fa fekkee ma toog ma na ko sama doom ji moo doon sotti deret moo tax ma. moom day génn kat la. fii la nekkoon pat daa di dem fële. léegi moom moom sax bëggul woon ma du bëgg sax ma tëdd sama wetu doom ji su ma tëddee si wetam sax ma jugal foofu léegi ma ne comme damay nàmpal ba jour bi may accusé def na docteur bi duma nàmpal xale bi léegi docteur bi daan ne ko lu tax du ko du ko nàmpal loo bëgg ci xale bi daan ne ko dara du ko nàmpal xam naa li ma la wax. ma ne ko man damay nàmpal sama doom de mu ne ma déedéet bul ko nàmpal. ki ma ëmbal mi ngi gàmbi. Hmm, lan lan nga doon wuti gàmbi. waaw sama xarit la benn jour dama xuloog suñu waa kër ma dem toog mairie ci laa tase. waa ji daan ne ma am na sama mag bu nekk fii ma yóbbu la foofu dafa yor jëkkër ak doom benn doom nekkate ki muy léegi ma ma dem foofu bañ demee léegi ma dégg leen ñu naan suba kii dañ koy yóbbu ville léegi ba ma xaw ma ne ma daan ma ne leen kañ la ñuy dem ville suba ñu ne ma ay minu yooyu ma ne leen ville ville guddi loolu amul fenn léegi ba ma demee ñu taxaw mu taxaw foofu jaay ma te yóbbu ma ko mu dem wax ak benn xale bu góor ba xale bu góor bi ñëw wax ak man léegi ma ànd xale bu góor xale bu góor bi daan na yow xale bu ndaw nga tolloo goo fenn kii bu mu la yàq dama nga ñibbi seen kër. est que ñibbi noonu la déedéet ñibbiwu ma de ma toogaat si moom. lu tax nga lu tax ñibbiwoo. dara boobu dama xuloog suñu waa kër ma génn mm-hmm. ma dem toog tribunal maanaam yow da nga doon jaay sa bopp waaw moom moo ma ko doon moo tax ma xam ma xam ay yëf caga waaye man yëf caga newul woon sama bopp. waaw léegi yow ani say waajur. samay waajur ñu ngi fii. lan ngeen jotee ba ngay génn foofu. xanaa sa papa ak sa yaay dañuy dundatul wala. sama papa ak sama yaay dundatul sama papa jiit ak sama yaay ñooy dund. sama papa jiit la mi ngi ci biir. waaw lan lu xew ba nga génn sa kër. dara man maa jékki-jékki ma génn dem. jotewu leen dara. mais temps bu njëkk dama daan xuloog sama benn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 talaata xale bi góor la wala jigéen amul solo bakkan la moomin la tut tànk la dafa am ay wàccuwaay yi war digganteem ak ay waajuram ba ci digganteem ak maamam digganteem ak dëkkandoo yi am di jàmm yi bu xase ba wéradi te kenn xamul lan mooy nekki lan gone la kune la ëllëg kum ci doon rek topp tool jox àq ak yelleef yi ci war nekkin wi nga xam ne moom la jigéen di nekk walla góor ndax yëf yi léegi góor sax jël na kër di doxal li nga xam ne lii mooy lu mel ne milieu lu mel ne clan lu mel ne auberge xaw a mel ne sax euh, ñu ni wooyee macro yor sa portable yor say photo góor dana def loolu di likkale ay nit boo dalee ci xale bu ndaw bu jigéen bu am doom ak nu ko doom ji mën a dikkee woo ko ci dimbali woo ko ci héberger héberger woo ko ci tatagal woo ko ci yaama neex maa fii sa karaw dafa gudd maa fi yow fan nga dëkk man ci koñ bi laa dëkk tata nga def ko tataawu yaama neex xale bi bàyyi ay mbokkam ak i am di jàmmam bàjjanoo la wala mu tataawoo la wala mu def la grande sœur ndeke yow yaa ko ëpp expérience ndekete lal nga pexe ndekete am na anguille sous roche ci sa xalaat yow am na loo daan def tàmm ko miin ko mokkal ko maîtriser ko nit ñi ñu ngi ci yow liste bi mi ngi ak yow seeni numéro téléphone mi ngi ak yow seeni service liggéey yépp mu ngi ak mais caaxaankat lañu yoo xam ne yow soxlaatun la âgé nga dépassé nga nga jël doomu jàmbur jël fat danga ciy dégg loolu mm-hmm. ba mu demee ba def erreur wala ñàkk xam parce que elle est innocente bu mm-hmm. xamoon dana am matuwaay yi xew yoo xam ne dana ko mën a jël ba nga xam ne lii sax mën na ko ci bañ a fekk mm-hmm. waaye moom xamul nga naan ko léegi nag bu xale bi dund ci ni ko waxee mooy négligence. xale buy nàcc. Mhm. nga ne ko garaawul jarul yóbbu hôpital. yaa ngi def ay jeu parce que bëggoo mu gudd bay nàmpal un an deux ans dootoo ko mën a jariñoo moom. Mhm. te xëy na prix par rapport ak yow li nga ci li nga ciy joué. Mhm. boo ko wutaloon jëkkër ci saa si sax ñu ne da nga kaa jël. dimbali ko may ko nit muy sëy. si siraatal mustaqima loolu sax wàññiwul dara waaye naka danga ko bëgg a boole jariñoo ko daal muy loo xam ne lii lu faral di am la te xale yu ndaw yi yaayoo n'importe qui bàyyi seen yaayi bopp yi ñu ngi koy dund maas euh, jërëjëf Baara Baara thème bi nekk na thème bu doy waar parce que tey jii dafa nekk loo xamante ne askan wi ñoo koy dund mm. bëri na li ñuy wax prostitution clandestine mm. wala maison de prostitution clandestine mm. yi nga xamante ne ñoo auberge yi ñoo yem mm-hmm. da ngay gis benn maire bu nekk ci koñ bi ñu koy woo maire Feeling Paaj mm-hmm. wala maire Nandité wala maire dégg maire boobu mooy jël xale yi ci koñ bi yi nga xamante ne amuñu ndey mm-hmm. amuñu baay maanaam ñàkk ndey ñàkk baay doon jërim mu ndeyoo leen mbaa mu bàjjanoo leen jël leen di leen jël di leen jox xaalis ah yow doom da nga maa neex ah yow de da ngay nuroog sama taaw bu jigéen bi mm. ah yow de yow ma wax dëgg yàlla te kañ nga may seet mm-hmm. nga ñëw seet si ko boo ñëwee mu waxtaan ak yow ne la man dama laa bëgg dimbali mm-hmm. waaye kat loxoy kajoor day weesaloo mm-hmm. yor liste boo xamante ne ay góor a ci ne ne la ñii borom bi barke lañ kër gi nag boo fiy dund da ngay dund ci sekkere maanaam da dund ci dund goo xamante ne ci pet lay doon ay kilifa laa fi yor bu ñëwee toppatool Euh, naxtaan lay doon mhm. maanaam raay mbese mhm. fexe boo xamante ne nax la ci biir wax mhm. ne la buñ gën gi ñëwee defal ko lu neex nanga ko nang ko toppatoo wala ah. kii sama ganub ministre la sama ganub nangam la nangam la nangam la xale bi ñëw petit à petit yaa ngi koy jàngal cagatu parce que yooyu noonu objectif bi mooy lan mooy recruter xale yi jigéen ñi di leen defloo prostitution déguisée ba pare baara li ci gën a doy waar bëri na jànq yoo xamante ne dañ jóge ci àll ba mm. wàll si ñëw pour lan ñëw pour ut liggéey dimbali seen njaboot mm. te ces jeunes femmes là sont victimes mm. de ces femmes opportunistes mm-hmm. parce que ñi nga ñi nga xamante ne tey di leen tax a jóg dëgg dëgg dëgg mooy lan mooy liggéey parce que prostitution ne liggéey la liggéey boo xamante ne lew na boo ca amee carte mais bëri na kër yooy gis mu rafet lool xam nga auberge c'est flagrant mën nañu auberge la mais kër yoo xamante ne baar c'est flagrant mooy kër maire dégg daaj yi may wax mooy ñooy ñooy toog di àngu xale yi min jànq yooyu ñëw jóge ci àll ba ñëw rang ci rond point yi di xaar dañuy xool ñi te gën a am taar ñu jël leen wax leen dañ leen di dimbali à fin ci li ñuy jël xale yooyu baara ñoo leen di jox lekk jox naan jëndal yére au fur et mesure ñu tàmbal la circuit bi di nga mhm. dem ba ku sañta bañ sañan nangu mhm. dugg ci loo xamante ne mooy prostitution mhm. ba pare doom ji nga xamante ne tey ji jëlee na ko ca doom ji du arrangé du fa arrangé mhm. munu ko arrangé parce que day tax marché am yàqu day tax deal yi nga xamante ne moom la ca bëgg pour maanaam jël xale bi chaque jour client yi ñëw loolu amatul moo tax mu ne ko doom ji arrangé wu ma doom ji warul woon judd est-ce que doom ji warul woon judd jëloon na matukaay yooyu est tamit tey jii jotul tey jii. Mhm. ñu xool yenn kër yi nga xamante ne mooy kër yi prostitution clandestine di def. Mhm. ñu koy tabax te maire yooyu gis nga ñooy dem mbuur mhm. war a sali. nekk ci petite côte bi. xool xale yi nga xamante ne dañu nekk ci wàllum dévergondage sexuel. délinquance sexuelle. jël leen di leen exploité di dugal ci kër yi du ut ay client baara. dëgg la dëgg la maas. Euh, lu nji njaag la te ñoom ñooy njaag mhm. ndax bañ nga ko ba sax léegi booy wuti liggéey da ngay xeesal ba weex tàll mhm. sol lu baax monter cheveux bu cher koketu mhm. jigéen ji ngay ñëw di ko wut si loo liggéey bëgg a liggéey ci këram yaa ngi koy sax jaay affaire pendant que yaa ngi wut liggéey yaa ngi defanteeg moom bu la jëlee baax na bu la jëlul sa yoon nekku ci te góor ñi itam dañuy far ak jànq ji da ngay indi jànq bu xaw a yemamaay ñu jiiñ ko salte jiiñ ko tilim jiiñ ko ñàkk a mokk di la perturber yow jigéen ji comme dangay ngay liggéey tu es nga jouer seen jeu ñoom wutal leen doog laa may jàmm nga doog a mën a dem liggéey sinon ana añ bi ana reer bi da ngay taxawaalu ba nga wàccee ba léegi ak circulation bi finalement pour am jàmm yow jigéen ji liggéey nga ni naa ko wutal li mu bëgg alors que c'est pas ça jigéen ñi léegi jànq ci xam na ne am na noo boo ko melul rek dun la wutal liggéey mais danga wax léegi xale yi toll ci dévergondé 88 628 99 99 nga bës 114 bu la neexee nga ñëw participer ci thème bi mhm. indi sa xalaat bu fekkee dund nga ko nga dolli ci expérience bu fekkee ni nag loo ko mhm. te nga am ci benn analyse rek booy indi nga indil ñu ko ubbil na leen téléphone bi mhm. da wax léegi ci ñu toll ci dévergondage xoolal période bii sànq bi na ci ñu ngi jëm ci tabaski xale bu jigéen bu baayam mënatul parce que yanu na xar mi mm-hmm. yaayam mënatul parce que liggéeyul mm-hmm. wala sax bàyyi ma ko tere woon liggéey wala daan na liggéey perte na mm-hmm. wala banque yi mu dugg leb bi dëgg la banque de proximité yi wallaay dem ñu lebal la cent mille lan nga ci mën a def dëgg la boo ci fayee benn traite fay ñaari trait ñetteelu traite bi doo am xaalis boo ko liggéeyale nga leb sa jëkkër leb sa nijaay sonal ñëpp ba finalement yow yaay jeew déjà nekkatoo fa xale bu jigéen bi nag bëgg a defanteeg waa koñ bi mais force dana solu te ñetti mbubu la ñuy solu léegi bu ngay lakkee brochette bi ngay kan ngay taajanteel sa far nekkoo ci sëy nga ni nag il faut que ma toj xew wi il faut que ma toj tabaski gi mhm. waaw da nga dem ba maire Feeling Patch boobu xamoo ne yow mu ngi lay wër waaye yow yaa ngi koy wër. Mhm. mais nag comme gone nga doo mën a xam ne maire bi boo amee contact am dana la dugal ci circuit bi. Mhm. waaye yow bu la maire bi songee rek da nga naan alhamdulilah. Mhm. bu ko defee nag ku la ëpp ku la mag ëpp lay sagar lay sagar. sagaram yu bari yooyu nag ci la lay lëmës mhm. takk la bëgg a dëgër lëmës mhm. parce que xale yi léegi bu nu bëggee juddu xale yàlla bu nee xale bu ndaw dina judd mhm. lendemain bi nga naanoon lay def ci loxo bi génnaale ko ne la mi ngi nii am teel sa pilil man juddu naa man <laughs> mënoo leen tey juddu kon topp caaxaan topp fo ñu teg la ci planning tegal la stratégie jox la carte di bañ sëy précoce. Mhm. ba pare nangu cagatu précoce. Mhm. nga am 12 ans 13 ans ba ba ngay am 16 ans mas naa fi wax 13 ans benn waaye ni ma non loolu amul da leen wax lu xam ne mën naa nekk mais boo xamee danga xam ne xale yi léegi dañuy vierge sax di cagatu. nekk jànq mhm. ba pare di càggatu mooy di def yeneen. kon bu dee xale bi dafa dugg ci loolu dugg ci circuit boobu nekk. dalee ci ku mel ne kii. da koy gaañ mhm. ndax moom xamul ndegam ki xam sax la yàlla dogal mu man ci am doom mhm. rawatina yow xamoo xale bu ndaw lan lay doyee doom amoo amul baay mhm. bu amee baay baay ba du ko nangu parce que baay bi day xam ne moom ak ñépp a ko bokkoon day dem ba màgg nuru koo wala yu demee noonu muy erreur yoo xam ne xale bi xamul système bi ay parents société bi mhm. ci bëgg-bëgg yi nga xam ne moom lañ leen imposé mhm. te xale waru ci woon a bokk mhm. yoonam warul woon a nekk ci tabaski bu xottee fa lilaay bu xottiwul na toog bàyyam lijjanti mu def yitte sol tiset bu beewal woddoo sër bu baax nekk ci di ñaq di wetti ba ku tukki woon jóge àll Côte Italie France Amérique ñëw doon baalu si àq gis ko daal ne mais xale bi jàmbaar la ah. mhm. kii mooy kan mhm. ñu ne kii day doomu meer diw la ak paa diw mhm. ci kër gi la dëkk nga ne waaw mais kii ku am am jabar yow gis nga xale bi ni mu sonne gis ko bi ci biir waañ wi gis nga ni ko ñaq wi def gis nga ni ko saxaar siy def foofu la sëkkëre ba ne dëgg la waaye du ñëw solu ba mel ne bu ma la ko waxati nit ñi nekk ci waañ wi yow nga nekk ci salon bi di accueillir ku ñëw balu si àq nga ñëw di boisson joxe yow sëyuloo yaa ngi jaayu nuruwuloo sax ëllëg ku nu war a mën a jël pour nga sëy kon rubrique la boo xam ne bii dafa nekk sax d'actualité mm-hmm. vraiment mas mm-hmm. xam nga baara da nga dugg fu nooy mm-hmm. fi nga dugg nooy na nepp ndax dafa am euh, loo xamante ne suite la xam nga suite bi mooy lan dafa nekk suite cinq mille neuf cent dix mooy cinq mille neuf cent mooy cinq minutes de plaisir mm-hmm. neuf mois de grossesse mm-hmm. un enfant zéro père mm-hmm. xam nga tey zéro père zéro avenir zéro père zéro avenir euh, olof Ndiaye dafay wax ne ku la abali bët fu ko neex ngay xoolee mais tey jii kër yi que baar kilifa yi ñu ngi ci kër parce que damay faral di wax ñett moo am kilifa tey bu waajur toogee ci këram di xool doomam bu jigéen bu am dix-huit ans dix-neuf ans ba vingt ans ñëw ci kër gi diri ab xar yenn ab xar diri ko teg ko ci biir kër gi am xar waaw ah. waaw diri ko <laughs> indi ko ci biir kër gi mhm. yow war nga mën a toog war ne sama doom ji xar mii fan la ko jëlee mhm. mais bul laaj ci question yi mi ngi ko jëlee ci cagatu gi mhm. baar xam nga euh, période bii ñu toll nii xale jigéen yu bëri sa sa sa sa sa baay yàgg naa jënd xarum tabaski yàgg na laa xottil boobu boobu tologoo nen yaa ngi dégg. di mhm. xottil sa waajur wu jigéen. Mhm. di su di dugg dund ci sutura. Mhm. nga toog ba benn instant nga ne tey jii nag. sama ndey amu ko jamono metti na dinaa ko wuti. wuti boobu nag ci la la lay dal di dal. ca ngay dajeeg mère filing pàcc wala mère dégg daaj. bi ne ci koñ bi. wala tonton saay saay. wala tonton saay saay. xam nga euh, da nga koy wax wokkatu bu dajeeg gestu lay doon. dangay dox di wër am ku lay wër. boo leen dajee. caakere mm-hmm. lay doon mm-hmm. cere ak soow lay doon day day daal mm-hmm. xam nga uh, problème bi mooy lan baara dafa bëri li ma lay wax sànq kër yoo xamante ne baara mi ngi ci dëkk bi loolu gars yi euh, war waa brigade des mœurs war nañ cee def liggéey bu rëy bëri na kër yoo xamante ne ay appartement la ñu tabax ko ba ci kaw intérêt bi du question de par exemple euh, ay xale ñoo fay nekk du luye jigéen wala nga ànd faak sa coro bu leen neexee luye ngeen def lu neex fay xaalis génnaat parce que auberge yi c'est flagrant léegi mais Bara euh, est-ce que jaadu na tey jii kilifa gu nekk ci kër di toog di xool say doom di indi nga naan sama liggéey sama li ma liggéey sa kër bàyyi foo ko jële sa waaju baax jee la ko jox mais laaju la lan nga fa bàyyi parce que am na yoo xamante ne genre procession déguisé la te loolu bëri na ci dëkk bi lëmbe ko lool mhm. ci jànq yi ngay wax mhm. ci ñiy taafantaloo papa maa ngi jàngi dama war a def cours du soir. Mhm. deful cours du soir cours de robe lay def. Mhm. parce que tamit xam nga bu njëkk ba contrôle dafa amoon. Mhm. wéy juru njëkk yi dañ daan dem ci école yi laaj emploi du temps. mu lay tàggoo yi nekk durant toute l'année scolaire. dem dugg ci prostitution déguisée. bàjjan wala mère nandité wala maire dégg daaj di ko jëfandikoo. di ko dugal ci réseau bi. bañ nañ ko ba euh, réseau la. danaan la gàddaayloo sa kër ne la yow. sa taar bi macha allah ni nga mel sa ndey dalaa iñaane sa baay dalaa iñaane mm-hmm. boo dee koo xamante ne baayoo nga wala koo xamante ne amoo ndey amoo baay mm-hmm. ñu jël la exploité la mm-hmm. parce que dañ ko exploité te di nga dugg ci am na milieu bi sañ Baara di nga nekk jamono joo xamante ne di nga bëgg génn mais da lay të parce que da koy tàmm otage ngay doon da ngay tàmm mooy da ngay tàmm dugalante da ngay tàmm génne ba tax na tey ji euh, matuwaay yi nga war a jël pour doo jël ko tal Mm-hmm. bis te bis boo jëlee ëmb nag ñu génne la ci kër gi. waaw mm-hmm. waaw waaw. Ah. Mm-hmm. sàkkat la pexe. boobu boobaa doo ko tal baara. dëgg la te loolu dafay indi infanticide bu bëree bëree bëree bëri. parce que jël nga ëmb euh, maire bi jëppi na la waaye yow insiste nga. parce que du avortement ñëpp ko ñeme. médicalisé baa ngi fii du ñëpp ko ñeme. mën nañ la ko gëmloo nga ni man duma ko def. nga am doom. xool sa neuf mois yi nga jëm. xuloo nga ak sa papa. xuloo nga ak sa yaay sa bàjjan bi ñu la joxoon bokku leen jikko mujj nga fàq sa kër nijaay du jëmukaay dafa yor ay doomam bëggul ñu bëggul bëggul ñu yàqu nga dem ba dem ba isolé wu kat su ma yoree bébé neuf xaw ma nan lay def ci sa gàtt xel jala daloon ba nga dugg ci circuit boobu ci sa gàtt xel jala daloon ba ba nga nekk ci circuit ba mënoo jël matuwaay ci sa gàtt xel ji la dal ba bi nga ëmbee sax mënoo cee génn dem jéem a daani sa doole liggéey wala xamoo sax kaka jur nga mën ko koo wékk ca ngay gàtte xel rek bari naa ko def ci mbuus taxañ taxañ sànni def ci oto mbalit bi mu dem mbëbës mhm. ñaata xale la feeñal mbëbës mhm. ka faboon doomam sànni fa quatorze feeñ wala quinze mais kooku am na ca mhm. te doonte deux mille lay sànni wala trois mille waaye kenn bu feeñee fële rek fi nga toog yow defoon naa ni àdduna yëgu ko mais àdduna yëg nañ ne man sama bos feeñ na. Mhm. te fekk sa bos sax mën naa am feeñul. dëgg la waaye bokk nga ca. Mhm. def nga ca baaraam bi boo ko tàllaloon fii tey. Mhm. tele yëpp a koy wane. wallaay te benn baaraam la. kon jenn jëf jooju deux mille personnes yi ko ma a def. yëpp ñoo ko bokk. muy lu bon loo xam ne lii kenn xamul médicalement parlant. entre pilule bi. préservatif bi mhm. ak ray bi ak dem sànni ci àll bi mhm. boo ci demoon ba àgg ci sax demal ci armeel nga suturaal ko defar ko defu defal ko yëfu nit mhm. parce que nit la yooyu yëpp nag bu la toppee sa conscience lay jàpp sa àdduna sànq da nga ni zéro bébé euh, euh, zéro zéro père ma la zéro avenir ah loo mënti def ak foo mën a jëm ak lu la yàlla mën a dimbali sa conscience du jóg ci bakkan boobu mhm. te mën ngaa am dootu ko amati mhm. wóoru ba xam ne nga amaat doom mën naa nekk góor dootu am jigéen mhm. mën naa nekk jigéen dootoo am góor muy loo xam ne xale bi daf ko war a moytul boppam préparer ndawam moo koy jox magam ju ànd mageem ju nekk ci jàmm ak salaam ak aafiya ak tawféex sans remords du am regret du am benn conscience boo xam ne bii dangay ngay dem dem ba dañ naan maire bi day toog bu yàgg mu jooy maire bi daal xamuñu lu ko dal day waxtu maire bi xamuñu lu ko dal day toog yàgg rek mu jóg maire bi maire bi maire bi fekk ne moom xam na li muy wax xam na li muy def waaye mi ngi ko dal ci bi muy xale rek yaa ko wax léegi jekk tëggal sa balcon mu bonde nga yor say airbag mhm. yaay may ma cent franc mu ne la borom taat wu tal na wii duma ko jox sama cent franc mhm. xoola boobu wax loolu mooy demal jaay ko mhm. ak ba ma ca tolloo boo ciy dem di ci am prix mhm. mu dem jaay ko ci condition yi nga xam ne yow moom nga bëgg la ca gën a garaaw xam nga wax nga indi xaru tabaski mais ki lay indil hamburger di la indil dibi di oto yu mag di ko gaare ci buntu kër gi kilimatise ko ba mu sedd mu nekk ak ñoom ci biir oto bi ñu tent ko ci buntu kër gi nga yaakaar ne demul fenn mu ngi ci biir buntu kër gi te oto yi léegi salon la néeg la. chambre à coucher la lépp a ngi ci biir oto bi. yow nga seetaan loolu. est-ce que bisu tabaski bu la ëndalee xar ñeme nga ko wax dara. au contraire. ana sa xar nga koy wax. dëgg la ana sa xar. ah mais kooku yi kooku kooku baara kooku bu amee yaa ko yaa ko dugal ci loolu. yenn wéyjur yi parce que man je me di souvent que. Mhm. naka la wéyjuru jigéen toog ak doomam. Mhm. ne ko ba ma cay toll. Mhm. ba may toll say at. la lu mu amul rek. ci man la. ba ma cay toll lu ma amul ci man la kon yaa ngi wax sa doom génnal nga dem wuti ko hmm. tolloo lu ma yootu jot ko hmm, hmm. baara dama bëgg ñu ñëw ci cause yi cause yi parce que loo gis am na lu ko sabab am na lan moo ko waral ba baara est-ce que yaakaaroon ne éducation bu njëkk ba est-ce que parents yi bu njëkk ba niñ doon quadriller seen entourage seen doom mhm. surveillance bi mhm. est-ce xale yi léegi am nañ sentiment de paternité wala de maternité mhm. sentiment parental boobu est-ce que am nañ ko amuñu ko est-ce que tamit wàccuñu suñu ànd waaw ah, surtout di roy ñeneen ba tey ñu roy dàq parce que xale boo gis tey jii mu dugg ci milieu yooyu baar ñàkk ciy dugal souvent mooy lan amul ay mbokk bu njëkk ba nijaay da daan intervenir bàjjan di intervenir mooy rakki baay. Mhm. ndijaay mooy rakki yaay. Mhm. daan intervenir ci seen yarub doom. Mhm. ba ci dëkkandoo yi. ba ci wóllare baay yi. mais léegi loolu amatul. wallaay wallaay xale bi day génn ñu balangal ko bàyyi ko mu dem. bàyyi ko à sa guise. bàyyi ko mu doon xar moo xam dañ ko tekki rek ba mu dem. lu muy uti mooy la muy lekk. baara beneen phénomène a ngi nii bokk ci cause yi. mooy añ rek la baay bi lijjanti. reer yaa koy lijjantil sa bopp. doon mhm. xale bu jigéen toll na la neex mel na la neex mhm. di bëmax sa monde mhm. xale boobu tey jii di bëmax mondam am a lijjanti reer baar fu mu koy jëlee <laughs> gëm moddu gëm euh, perruque naturelle gëm lekk ak fast food euh, euh, sëñ Seexuna Mbàkke Duyooli ak Matar Sylla Uqa xam nga da wax waxu système bi nga xam ne moo indi lii mi ngi tàmbalee ci booli reer bi daana tax ñu konte xale yi mhm. daana tax ñëpp jof si à l'heure timis nga taaj bool yi da xam ne ñëpp ñëw nañu mhm. dafa na am na ku bëgg a dugg allo allo sëñ Ba na ngeen def salaamaaleykum waaleykum dafa am ku bëgg dugg waaw damaa bëgg a maa ngi defar l'émission ah bisimilah yaa ngi ci biir waaw dama doon wax ci thème am solo la jërëjëf mais nag dafa am loo xam si mooy. mooy loo gis rek ab système la sunu maam yi dana am boo xam si nii moo doon seen société moom lañ tëralee woon seen société. Mm-hmm, dëgg la mooy ni noonu la ko ni ko yàlla tëralee ñoom noonu lañ jëloon rek jaar ci basé wu. Mm-hmm. mais jamono ji ñun danoo bàyyi jël san sunu maam yi nekkoon la lislaam digle woon jël bu tubaab bi. Mm-hmm. tubaab bi nag dafa nu mu mel. mooy tubaab bi moom fii nii. mooy góor day liggéey jigéen liggéey. Mm-hmm. léegi yar moom daanaka xale bu ma mesure lañ koy yar maanaam saar dañ leen ko yóbbuwal ko mais bu ko see am 18 ans rek da ngay libre. Mm-hmm. te bu dee lislaam la. waaw nit fii sa baay a ngi dund sa baay sa baay sa baay mooy. 40 ans cinquante ans. mooy sa autorité. nit day am kilifa ba keroog muy dee. Mm-hmm. te tey jii ci message bi ma lay jox rek mooy tey dan ni na ñëpp liggéey. Hmm. léegi dugal nañ ko ci bopp nit ñi ba ñëpp na liggéey ñëpp gëm nañ mais li tam dafa nu mu tëralee mooy jigéen na top ci kër gi gérer njaboot gi mooy yar jigéen mooy yar. dëgg la góor dem liggéey fexe ba kenn jigéen ñi duñ soxla dara. Hmm. lépp fekk nañ ci biir moo tax ñu ne jigéen lu mu mën di am dund ko war a yor. Hmm. mooy day tax ba tax du soxlaa yu ci dara. xam nga loo amee doo ko def dara. comme booy dara ñun la toogal ci kër gi góor na liggéey. Mm-hmm. góor moom kenn du ko sëkk di ko sàcc góor kenn du ko agressé en général ba amee doole. Mm-hmm. Mm-hmm. moo tax l'islam su moom li yàlla moo bind nit. waaw xam na góor moo gën a compli moo gën a complexe jigéen. mais loolu tubaab bi dugal nañ bopp yi tourné ñu yeneen système mais loolu du affaire u xeet ci ab xeet bi yàlla dafa bind nit kenn ku ne moom rôle bu mu la jox. jigéen lim man góor mënu ko. góor li mu mën jigéen mënu ko. kenn ku ne bu toogoon sur loolu. waaw la nga war a def. Mhm. kon ñëppay nekk ci jàmm. Mhm. mais problème bi dëggantaan li ko waral mooy danoo bàyyi loolu bi jigéen doon joué la joué moo tax lépp faussé. Mhm. léegi ñëpp a liibu tey dëkk da ngay yendoo daw bu dégg bëccëg. dañoo bàyyi li ñu moom sa doom yi di sant mbedd yi boo ñëwee ñu nëblu. boo ko yëg boo ñu ne noonu noonu gars da xëy xëy rek dégg ñu sa doom jàngay jaay bu ko jàll. dëgg la nga naan loolu nu mën a amee. Mhm. fekk na yéen a tu fanaa la tu. Euh, waaye waaye sëñ bi. loolee problème bi société yi ñu changé maanaam bu tubaab bi ñu jël bàyyi hmm. suñu bas. Mhm.